te di leen ziar di ko tàmbalee ci suñu waajur wi nekk fii di kilifa ëtt bi di Serigne Thierno Bousso di nuyu mbooleem njaboot gi nekk ci ronam te woote jataay bii di ci waajal bis bu ñu jagleel suñu maam bu tedd di Serigne Amar Faye Bousso ngi leen di nuyu ñoom te am mbégte ci ñëw ci dërëb bi ndax dërëb la boo xam ne xam naa fi lu bari lu baree bari la maa ngi gëj di ko jokk fas yéene ànd ak mbokk yi ci tomb bi ñu ñu wax ma waxtaan ci tey sëriñ Abdoul Ahad bind ko léegi ak sëriñ Ibrahima Fall dëgg la tomb lu mat di waxtaane la ndax dafa ñëw lu yomb te yomb kon bu fekkente ne njaboot bi jékki-jékki nañ tànn ko ngir bëgg koo waxtaane ñoom xam nañ li ci ne rawatina buñ ne sëñ yi sëriñ Afio mosul na ko tàgg te loolu ko wax léegi sëriñ Ibrahima sëriñ Imaam bu su wax ko léegi ca xasida bi borom solo bi ne moom misaal la ci kan nan la am murid bu saa jokkoo te nga wax léegi fu ko sëriñ Cheikh Mokhtar bi mu delloo tudd bi tuddee ko noonu. du ñii koy tudd lañu bari leen léegi da yomb waaye boo delloo ci mbir mag ñi da nga yëg ñu tudd murid saadex bari kon nag mot naa waxtaane rawatina bu ñu xamee ne sëriñ bu mag bi radiyallahu loolu la fi andi woon ci mag ñi ba baleen fi ñu nekk di defar li tax mu am solo ci waxtaane ko nag Serigne Ibrahima Fall làmpoon na ko léegi mooy jamono moo toll foo xam ne nit ñaa ngi koy firee mu ne kenn ku ne am nga noo jàppe ni moo di moo di sàlla am nga sa nattukaayu bopp boo xam ne tere na ku mel noonu yow dara nga ne jëru moo di sàlla loolu mbirum dene moom te yow lu wax borom mbir mi ki fi andi woon ak taalibe mu wax ni lan koy taalibe loolu dana am njëriñ ci ku bëgg a xam ne nee na war nañu yoon ne li mu woote lan la ku ci bëgg bokk wala ku ci bokk te nga jëgg ko téye bu dëgër fexe bu ñàkk waaye soo gisee ne manqué nga rek nga jéem a dox jàpp naa loolu te ñu bare bare ñu koy woote di ko melal di ko jox boo gëstu woon leneen ci dugal ay masaale shaxsiya moom ngir murid saa dal am na lu muy mel fekk yow daa am amaana kuñ la murid murid saalix te boo gëstoo mbiram muy maridu passé mu jaxasoo am ay addaaya ñu koy wootee te doon kon loolu dana doon am solo ci mbokk yi ñu ko fàttalal kon danañ jéem a xam lan moo di murid taalibe lu mu laaj moo xam ne li nga nekk mooy faw yooyu day boo nekkee mu ne saalix nag li nga wër am murid baat bi sufiyanke yi ñoo koy jëfandikoo sëñ bi daa ñëw tabax ci aw yoonam waaye fekk na ci la jaar moom ci ba doon li mu doon ci iraada saalix la dox ba àgg ba taxawal li taxawal di def ko ñeneen mu ñu koy xam ne nag dañuy wax rek mooy tajridul qalbi lillah ak taalibe ak iraada saaliha mooy nit ki jël lépp ko jël xolam jox xol bi nga xam ne mooy buur ci biir cër yi nga jël ko jox yàlla su nag amatul leneen luy rëy sa kanam amatul leneen luy rëy ci kanam ki jël xolam jox su boobaa yi bépp yëngatu bu ñu yëngatoon ngir yàlla doon ñu yëngatu ngir leneen lu dul ngir yàlla lépp jël bu mu set yàlla tax mu mu set ku muy jaxasoo yàlla tax mu jaxasoo yow dootu sukk ci kanam nit ngir ne nit du sukk ci kanam nit ngir ne nit koy bëgg waaye du def dara ngir bëgg nit ñi di ko gërëm wala mu bàyyi dara ngir bañ ñi dara soxla ko ba tàgg faale wu ko xas ak iraada koo xam kon ku mu yow yàlla la ñoom yàlla may bàyyi xel ndax da xam ne li nga soxla yàlla ko li nga bëgg di wut yàlla koy joxe. kon boo amul ci xel ci yàlla rek loolu dañ mën a tënk ci biir loolu nag lu lay àggale ci yàlla loolu noppi nga ngir ngir loola waaye loo xam ne day yeexal sa dox nga bàyyi ku ab iraada sagal nekk ci moom noonu lay doxe li borom bi waxoon ne wasbir nafsaka ma'a alladina yad'una rabbahum bil ghadaati wal ashi ay nag di na

seen bàyyi doon kilimaan dëkk bi ñu ne bu mokkul alxuraan dem boo xale bu jëlee ba jël ñu jëlee mu tas dem jàngi alxuraan jàngi xale ñu ko ji kooka wuti na xam-xam wuti na alxuraan waaye yàlla taxaw am na lu mu bëgg te gis ne lii ko koy may mu daal di xar am mu daal di am lool mën naa bëgg lu baax waaye ci wàllu yàlla moom dañuy jàpp ne am solo ndax lim woo du yàlla moo tax sëriñ mag bi radiyallaahu anhu am na ci ay laaj bu ma sonal bu ko mos a laaj ñu koy doon dane ko amaa su'aalaka an haqiiqati tariiqati l-iraada ixtisaaran fal-mutaaba'atu bil-i'tiraad wa husnul ghanni fi kulli shay' wa imtithaalu l-awaamiri sirran wa 'alaaniyatan wa ijtinaabu n-nawaahi sirran wa 'alaaniyatan ma'a t-ta'addubi zaahiran wa baatinan bi tarki kulli maa laa ya'nii qawlan wa fi'lan foofu tëgg na fi xamle yoonu ak taalib mooy la mooy toppee yoon la waxoon ne ku mu sóobu da ngay nangu ñu yilif la dëgg kon du foo xam ne sañ ngaa jékki-jékki rek féetal te muy lu loo xam ne léegi nit ñaa ko def ci bari bari jékki-jékki rek sos dara tànn na ca lu mu la juboo di ca doxee di ca woote jàpp ne yow da ngaa def féetal du yoon ak mën wax ne la dañ kon yoon mu taabaa defal nga def bàyyi nga bàyyi ba noppi nag àndul day naan yow da ngay li ngay def boo ci gisee résultat da nga def boo ko ci gis doo ko def waaye la dara ne la defal nag nga dara yoon daan ne sëriñ bi joxoon na ma naan waaye def naa ci sonn naa ci gisuma dara xanaa loolu di nga yoonu taalibe mutaabaa la li ngay def dara loolu nga ci ne ki la ko sant sa njëriñ dana am sa yàgg yàgg njëriñ dana fekk benn nga waaye loolu ci tuddoo mooy fas ko baal na fi gën a sori ba noppi nag ndigal bu ñëw nga def topp ndigal ci biir activité bari na ñuy topp ndigal ci kaw ba noppi di ñàkk ci suuf loolu la tëral digle nga da nga def am na ñëpp waaye ci suuf nag yàlla naan sëñ daal daal xam naa yow naa yow daal waaye li ngi def nii jamono lay ko jamono la ko jamono ñëw ci bare bare ñu ñàkk loolu du ak tëral waaye moytu tere yoonu iraada yoonu moytu ay tere mooy li la bi ñëw di ko fedd ni lépp dañ ko bàyyi kon du yoonu topp ndigal yoonu topp ndigal loolu baax teggin na yi loolu lépp dañ koy boole ami teggin ci zaahir ak ci baax ami teggin ci zaahir mooy sa diggante nit ñi ñi sa bopp sa njaboot say mbokk àdduna jëpp waaye am na teggin sa diggante sa borom ci daf lenn loo xam ne day merloo yàlla ba am ba sax law ak layka dañuy wax ne ñàkki teggin ne jàmm ndax day mel ne am na looy tàmmal sa bopp da ngay jàpp ne kon yàlla mi la sàkk da laa fàtte wala da laa xamul loolu bokk na ci li sëriñ bi daal la woon al mursala bu ci desee bàyyi lépp lu sa yónni aw murid amul jot nga fekk ku ci loo xam ne amul ko njëriñ du ay wax du ay jëf la te yëpp nag buñ doon xool suñu bopp ñoom dañuy yëg ne léegi daanaka fekk ci nit ki lu yorom nekk mooy li xëy ba daanaka nit ñi nekk tey kenn nekkatul ci yorom nekk léeg-léeg nga fekk ay nit ñi ci politique ñan tey wax bay tojante ko te kenn ci jëriñ léeg nga fekk ñoo xam nekk làmb lekk ñoo xam ne rek ñu cay wax ba seen i gën tàng te axira ñetti wax kenn du ci gën daal kon loolu euh, bokk na ci sëñ boo xam ne taal bi dafa dàqonte nekk ci loo xam ne nekk moo tax xam jàngal bi koy béy ne ak taal bi bu ñu doon xam leen ni maa alayhi al aada ak iraada bu amee ci nit ni ñu koy xamee mooy da ngay sànni fële baax masalan doo ne suñu baax maam la nangam di ko def wala nangam duñ ko def ndax la du suñu baax ki iraada nekk ci moom lépp lu muy def boo ko laajee lu tax day wax ne la diine moo digal lépp lu mu bàyyi boo ko laajee lu tax ba ko day wax ne diine moo ko def waaye lii suñu aada bari nañ suñu biir ñoo xam ne dañuy bàyyi mbir ngir ne seen aada ci misaal gis koo xam dañ ko ne daa bëgg liggéey bëgg naa commerce ñu ne ko commerce bi sa sa mel ni moom dara tax mu daal comme du commerce sa te borom mi jaam wax ne dagal na jaay kon ko wax na ne Eh, ak murit melokaanu murit ba ci jiitu mooy day bàyyi baax topp bi day bàyyi baax topp bi bépp yëngoo day su ko yeew ci baax bu ko diine rafet lool jël na bu ko diine ñaaw loo bari moo xam miire woon nañ ko ay mbokk wala miire loolu bokk na ci li ko sëriñ bi firndeel bi mu wootee wootee bu mag bi tàmbali di sos ay barab te lépp wane ne moom bu nitu aadama suuf sax dëkk sax bu tudd ko Daaru Salaam man ñëpp li ci ëpp bokk seen barab dañ nga sañ seen bopp lañ tuddee mbaa boobu ñi tudd leen ko ñu jàll ay waaye moom dafa loo xam ne lu yees la loo xam ne dafa gën kon fawul mu wuutee ak li ñu boo doon wër Sénégal daa faral di wax li nekk ci ay kër nangam maam mu say tuddee ko tuddee ko boppam waa am njaboot tuddee ko ñu naan kër bu naan la li mu bare bare lañu doon waaye sëriñ bi bu ñu ñëwee xeetu yooyu Daaru Salaam Daaru Mannaan ba xam nañ ma dañu leen tey Bustaanu Maarifiin Rawdu Rayaahiin xeetu tur lépp dinañ loolu bokk na ci li mu baax. doonte baax bu baax baax mu baax baax diine ko boo koy day mel ne leneen moo lay dugg gën moo tax yoonu ak iraada wala melokaan lu ci jiitu mooy mu ne day bàyyi baax nee nag ku sóobu yoon wi bàyyi baax ba mu jaar di njëkk njëkk te àggoo mi ngi mel ne ku dugg ci diine bu jaar bu génn yaa ثم رجوعه إلى المعتاد قبل وصوله كالارتداد kon ku ci dox nga ne sa ñëw dëkk ci ak dëkk la li nga bàyyi woon ngir yàlla nga delloo kon moo man nga dëgg la wax naan jaayante dellu bu ko jëm bu bu bu ko man ñu ko bari dem ñu sëriñ bu la sax nga Betul tak? Dia kata enak. Tapi rumah dalam bukak bak novel. Ni jam di rumah dalam sepun dalam. Kau butuh dan kemudian pun fakir bila beli dalam game. Macam fakir dalam bukan fakir dia ke dalam nama. Dalam salam, dalam dalam nama. Dalam lawat jalan. Ia sama. Ya Rasul. Kalau bukan lagi, eh, kira ada mai bayi bah. Bayi kau kamu Yang ngi yëngati loo xam ne la tax nga ci yëngu sa baax la say maam wala say maamaat ci ko dal wala seen dëkk loolu fa xew xamal ne nga seet dana daa mat boo yëngoo ngi ne la tax nga yëngal yàlla bàyyi naa ni tax nga bàyyi ko yàlla ma ko bàyyi loo bàyyi daal di wax nag ne li waral loolu li waral mu ne di bàyyi baax mooy am mooy du namm ci àdduna lu dëw yàlla إذ المريد laa yuridu abadaa gayral rahmaani xaytu qasada day mel ne karaama lu ñu ci teg foo ko biddal am ngërëm yàlla lay wax. suñu jamono tey koo ci méttoon laaj ko ñu ko saa yu doog a doog ay benn benn ñëw ñu lay wax ngërëm yàlla koo ci méttoon ñu naan rek ko ne ko seen ñëw loo koy wut sa àdduna. loolu rek lu ne ngay dégg waaye wax nga ngërëm yàlla ay benn benn ci koy sëriñ bi nag noonu la am muy yittee mooy ngërëm yàlla yi ci kaw suuf si ku muy jëfandikoo bëgg am ngërëm yàlla bépp jéego bu muy seq yi ngir am ngërëmu yàlla moo tax ñu seq bu fekkee yow nag yaa ngi dox jéego buñ la laajee loolu loo ci bëgg nga wax leneen xamal dese gis nga muy jàngale xale yi foo wane laa tashaxilu anil huda ndax huda moo joxe ngërëm yàlla mu ne gone yi seen yitte na doon lenn mooy am njur léegi rek da lay wax ne gone yi dama koy defar dama bëgg mu tekk boo ne ko di tekk mooy lan lii ak da jëpp la na am xaalis na am nangam na am barab sangam na am nangam loolu mooy kon yow jógoo ngir am ngërëm yàlla waaye murit bu ñu ko dee looyu mu ne bëgg am ngërëm yàlla kon lu koy maye texe ne lépp luy may ngërëm yàlla ca kanam loolu yi bokk na ci li nga xam ne jar na bàyyi xel ahdaf yi teg ñi ak ak i xaaya ne fa lañ jëm lu ci bari boo ko leneen lay gis day sonn ci doomu jëm bi jàngal nëw dugg waaye lan am na daal lu gis ci réew mi loo xam bëgg na bëggoon na koo doon mënu mooy naa fexe sama doom doon kooku kon formé wul doom yi ngir mu am ngërëm yàlla kon ak giraan am des na iraada dëgg jenn yitteem yi am mooy am ngërëm yàlla ndax mooy li nga xam ne borom bi noonu na wala wala min allaahi akbar lu waay di wut am ngërëm yàlla gërëm boo amee sa aajo faju te dootul yàqu boo ko ñàkkee rek amu ko dara loo mën kon lu solo am solo iraada da mbokk yi li koy dëggal mooy mën nañoo wax ne mooy xidma ubudi maanaam doon gaawu yàlla ba ca gën a kawe mooy maa nekk ci daal kon ci kuy dox dem ci yàlla escalier ba ci wetu kaw mooy yàlla man ngaa doon julli di góorgóorlu waaye doo am xam doon jaam léeg-léeg nga dëgg nga rafetal léeg-léeg nga xe geesu àdduna léeg nga geesu àllaxira waaye ci am giraar ba day dem ba fàtte àdduna dem la àllaxira gis kon mooy ximatu alwaru bi te xam ne ubudiyya na nit ñi ak jinne yi bindu ma yàlla bi féete kaw fa xasee am nekk am murid sadiq yaay jaamu yàlla di gën a mag li mu doon yaay jaamu yi mooy. nit ki mën leen doon moo tax bay boobu sëriñ Moussa dañuy wax ne tagg mënut wees noonu billaahi yaa mat leen doon nit ki mat leen doon mooy jom waxtalu am baax lu mën doon rek lan doon su ko matee mat doy boobu njàll ëpp na te ëpp na kon mat li nga mooy doon doon mu nii yàlla mbir mi ci àdduna wax la li tax mbir la bi nga ñëw fexew la xam bu leen ko lay mooy koo xam ne yàlla da ko bind ngir ne ko lii tax ma bind bu mu ñëwee àdduna di góorgóorlu fexe ba mel noonu kon mooy jox waxtalu mbaax mooy jox waxtalu daw ya te yàlla nag jaamam la soxla ñëpp moo leen moom waaye teewul mu tudd ci ñenn ñi ñaari baat yi kon danañ xam ne ñëpp mënuñu ay jaam kon am muy mooy jaamu yàlla jullit jaamu yàlla bi mag bi ak njaaw man mooy loolu tënku kon nekkul lu woyof ne moo xam ne di ko Cheikh da nga ñàkk dëgg rek ñëw fi ñu ko sol foo dem daal ko solol solo li gën a doy waar mooy di ko jéem a solol solo mooy lan mooy man maa fi gën a ko man maay ma boo xamee li wax ne murid saalix mooy jullit bi gën a mat bi gën a mat lañ doon loolu nag borom xel jàpp naa ne ñàkk xam li ñu teg moo tax nit ñi may taxaw naan nag mbokk yi ginnaaw lu laaj solo am na lu laaj day mel day su ko li gën a bare ci ñun nag ay doomi mbirum salaam la bare ay mbirum salaam moom ndax sóobu la te ñi sóobu la ñu bëri sóobu nit ñi mën nañ laa jur yar la waaye nag yaay suuf na la kon yoon la woo xam ne amul fëtal liñ ci amee kenn ku faw kenn du jafe-jafe rek gis nga ci foofu daal daal di sax wala foofu maanaam moom lay doon daal ay jéego yu ñu seq la muy metti ngay yéeg baal loolu nag faaw nga am lu dul kon jéego di jiitu ci melaw ñi am mën laaj mooy mooy day am kilifa. du loo xam ne mën ngaa jékki-jékki rek xëy doon ko xëy àgg ñu tàmbalee ba léegi gis nga nag jékki-jékki rek xëy na la àgg na tànn na di ci dox di ci woo nit ñi comme dajee jàpp ne lan nekk gën la nga nekk te boo ko laajee foo ko jëlee du wax dara li gën doy wax mooy ñu bari lay ñu wax ne man ci ay yëg yëg laay wax yàlla bay ku dox ci ay yëg yëg moo tax mu tànn ay yeneen jox leen ay tey ndax jullit ki muy doon sami'na wa ata'na fan la fii la nga jaar yoon waaye jékki-jékki rek yaakaar naa fii la suuf dem lislaam loolu dafa doon jëlee moo tax mu ne kenn ku mu sañ-sañ jékki-jékki lépp loo nekk te boo ko gëstoo ba mu jeex loo fital la kenn mënul yomb yaa ngi jékki-jékki xàll ko xamal ne jaww bu dee ci tariixa loolu jaww tarakatul irada da ngay mën a wax lii mooy wax di ko bëgg bàyyi na ay li ñu taxaw ñu fi yëngu dañ lay wax ne la sëriñ bi jox nañ ko def seen sëriñ waaye bu ñu ngi jox ndigal xam nga day yëngu lu doon da ngay wax ne la ah, day ñëw rek ma lu baax la ma nekk am misinaat dañuy ñëw ne ma yi bu ko defee bokk na ci melaw day am tëri laaj yi ak ak ak iraada saa yoo xam tënk ak bu leen naqaree bu mettee ak bu yomb faaw nga tënk ci liggéey mooy laaj ko seen jooju sëriñ bi wax na ko kàddu bare bare ak muy faaw mu tënk inna imtithaala amri shaykhin aarifi yufdi murida li dalil maarif am muy tënk ci ndigal moo koy àggale fa mu laaj kon yoonu ak murid sax rek mooy topp ndigal nga xam ne bépp jéego boo seq day am ndigal loo ko def nag saa su ne la ñu mooy ca ngay ku ne nag mën naa am na fekk mooy si ndigal waaye nag nañu bàyyi xel ne ndigal moom mooy yàlla boobu yonent bi mooy laa taa'ata li maxluuqin fi ma'siyatillah dee su topp ñu def ci loo xam mooy yàlla kon bu ñu naan dégg ndigal ni ko ñaan jàpp waaye ne man ginnaaw sama kilifa ma ko digal rek baax na day dégg ñu bari ci mbokk jigéen ñi ñoo xam ne ñoom dañuy soppi seen dara day jokk seen kawar ndax seen sëriñ seen borom kër mooy seen sëriñ te nee na leen lu ma neex baax na ci te lii neex na kooku kooku topp jëm foofu kon bu ñu wax topp yi na fekk kii digle di digle lu jar waaye képp ku digle lu jëru wari su ko eh, sëriñ bi noonu dafa mën a la rey mu ilahi dallaka fa firra ni innahu adalla ku la woor di la tegtal lu dul yàlla dawal nga xam ne dana la réer kon xamoon na ne am na ñu tuddooy sëriñ di tegtale ci yoon woo xam ne du yoon yàlla tey la nga gis xam ne la ñuy dalee loolu lépp a béy ba mu des yàlla lépp mën ci biir ba mu yàlla te dañ koy def turu yàlla di tuddoo ne ay murid saadix lañ yow sax te boo seetee biir lépp xatu ndigal murid saadix mënut a xatu ndigal bi ci des it ak murid saadix yëpp nag du lu yomb ni ñu ko waxee ba nga xam ne rek ku jóg woote ko gaa ñu baax ñii tey ñii fàttaliku sëriñ affaire ñu mel na ñooñu boo leen laajoon bañ leen di tërbiyee fu ñu doon jaar. dañ la wax na daj nañ lu mburu day ci daal maam ñu bari nekk nañ ak sëriñ bi ñu ci bari ñoom kubéeru satala la ñuy naan ci ndox dal ko baraay moom la ñuy lekk ci wàllu quatre heures tey du bu dee bëgg ña ngay liggéey jàng ña ngay liggéey dégg ngeen sëriñ Bara Bousso wax ne moom nit nitu yaram la waroon waaye jamono yi toll ci kaw sëriñ bi taxaw moom di ko yéegi ci dundu gu mel noonu moo tax ba mënut am yaram te loolu man gi doon ne ci ginnaaw sëriñ bi noonu lay mel kon doonul loo xam ne da ngay judd rek amoo benn problème nga xam ne tey mosoo jaar fenn fu mett am na ñoo xam ne daara dina xale sax teewul daara dina xale sax teewul daara yi doon jàng buñ la saraxee ca bu naqaree nga sànni ko suñu kër boo génnee wett ko waaye kooku xam nga bu yemee ci loolu kese jaru fa moo ki nga xam ne daana toog benn kër rek ay fekk bi mbalaay moo dugg ci jëmiñam ak kubéeru sabal kon mbir la moo xam ne lu ñuy jaay la kenn du xëy am ko yoon waaye dañuy gis koo xam ne benn effort bu mas a jaar moom mu jekk-jekk dara mën a bu ñu ñu takkal dara nii léegi li gën a doy nit ñi ay tur yu rëy rëy la ñuy jël pour tuddee seen bopp phénomène bu xew la bala ngaa bala ngaa ràññi nga sos ko tur ne man maay naan xëy na bu njëkk bu mooy saa yoo da cee am waaye comme yaatu na te ñëpp a gën a war a ñëw ñu naan maay làkk nangam ñu ne maay lu la ñuy wax lu la lu la lu te bu dee moom ci waxoon ci lëndëm la nekk ba def ay lamb kon kenn jaarul ko fenn nga xam ne bu dajewoo booloo yi bëgg leen teg ci yoon xam ci yoon ndax jarul fen ba muy jàng daal njàngum ak lu bëri ci ñoom ay ndaw ko jàng nañu teel a tëb bari pexe dajal ay nit daal di xëy doon ak ñeneen mbooloo ku mu woote li jafe daal mooy wóor nañ waaye ci des ku mu neex tey boo xëyee woote am moom moo jeex lay la nga def sax ñoo xam ne dañ lay campagne la ngir bëgg nga nomb ngir bëgg nga nomb def la jégal rek ne ci sa ginnaaw gën a kii lay fal mu sa Cees am na dara bu nomb

di la jàngloo loo xam ne amulul benn njëriñ benn njëriñ amulul ndax yow da ngaa toll ci wuti xam-xam ñu ne la bu ne la guddi di la jubloo ay raakaar yu kenn xamul maa jox la tur naan def ko naan ko téeméer yoon maa jox la genn xasida loo xam ne boo ne woon sos bi ku ne xasida gi dañ ko jàng naan ko yoon du sëñ Tuubaa du ko sëñ Tuubaa kon fu mu jógee mooy mbir la moo xam ne tënk ci ndigal kon mënut a am njëriñ mënut a am ndax teguwul ci ndigal moom yooyu nit nañ ko xam ne nit li muy def di ci jariñoo bu dee ci iraada mooy day tegu ci kaw waaye lépp bépp yëngu ngeen dégg lu mu rëy rëy te yëngu-yëngu amul ndigal te bari ci ñu def nag jàppee ko lu ñuy defaree nit ki am xelum nit moo xalaat di ko doxee waaye am ci ndigal ci histoire ci moom lañ ko dëkk dégg gone ko bala ngaa tëdd na nga ñu téeméer encore mu nekk jàng ixlaas yoon day mujj buy dox doxul ñu ñëw comme borom jàpp ne moo la gën nii seen làkk la wax leen di lim lu bari lu muy def di lim lu bari lu ci lu baax te murid yi seen melokaan ba gënoon a fës bokk nañ la ixlaas léegi nag lépp yàlla amoo soxla ci ñi xam da ngay fekk ku fees dell alquran fees a xam-xam bari na ci Sëriñ Tuubaa ñoo xam ne dañoo gis jàpp ndax nañ la fekk mel ni buuf buuf ci suuf buñ la yónnee nga takk sa ndigg te fekk alquran bi fees dell bu dem xam-xam ña wax ak yàlla ñu mën waaye loolu la ko gis ndax li ngay wut ak woyof moo koy may nga daal denc loola ngir am nga ñëw léegi nag dañuy taxaw di li ma ñu tey li ñu doon war mooy axira axira ñoom ñëpp ay jaay ndox lañu ñu doon ñu yëngal yëpp jaay ndox lañu jaay naa naan naan yaakaar naa sëñ bi dina baax defal naa naan bi koo foogee naa woo ko wala nga seet da nga koy diw rëy war nga ko dem laa si biir dafa la naan moom it day borom bopp woyof daal daal lu la ay naxe la yooyu ay naxe loolu iraada yoonu jëfu da ngay futti ko sóobu wan ginnaaw àdduna néewal ak lekk néewal ak naan néewal ay nelaw waaye di bindal boo njëkkee di njëkk ci di ci mujj ba doon jàpp yow gën am na lu sëñ ba ñaax wax ne dara dana ko ñam ñu naan sax lu ko doon naan danaa xool taamu yoonu sufiyaan gi di tarixatu iraada tarixa noot sa bakkan nag bu ñu ko noot te xiifaloo ko maraloo ko gëmmantuloo ko waaye day may na ma ko doyal ah di lekk ba suuf nag ba màndi bu noppi naan mu saraxu moo tax bokk na ci ñu gën a tooñ sëriñ bi ñuy wax naan moo niinal bool yi nooyal la loolu moom xam naa musal yi bari daan na neex niinal bool yi waaye seen maam moom boole yi ñeent tëfuleewul ak fañaas kon yooyu dañ koy nax nit waaye yoonu iraada bu yoonu noflaay ak coono ngay daj te sëriñ bi ko nabatukum maan ala ne yoon bi mbir la moo xam ne dee ko for doon lu yomb léegi nag yomb nañ ko lool ñëw rek di wax baat yi wax ñu naan ne bis bi daal mooy saa bu subaa nga tàmbalee defar la mari ànd ci mbooloo lu ñu wax nga ne bu saa na léegi mooy la seen boobu benn jël kenn defaru la kenn fóotu la kenn duyu la ana fooy fooy fooy fooy fooy fees loolu mën naa bàyyi xel moom kon lim laaj ci bàyyi jaxasoo koo te jaxasoo la ak ginnaaw amul diggante moom doo jaxasoo kat dañ lay waxtu wu yaa ngi ci faral buñ demee ba noppi ci yow nag ci lañ la door nag nga dem di jaxasoo ngir soppe waaye ñu bari ci ndaw ñi léegi ñetti at gone boo ci gën a gis maanaam bu assuré mel la ñi àndal mel na ñoom ndax dara ñëw ci ñoom fuñ dem rek ñooñu yëpp leen seenu mel ñu doxe noonu day gis koo xam ne bu demee ci tubaab doon tubaab bu demee ci naar yi doon naar bu demee ci séeréer yi doon séeréer soppali ko booy Dakar ma ne ko saa yi foofu jëm mbooloo yoon bi nga def ba mu sóobu da nga feeñee njëriñ ci jëriñ ko ndax soppi ku gaaw mooy koo xam ne kenn du ko dara fu mu dem rek mel na ne loolu mu mu ndax mi ngi jaxasoo ñeneen kenn defuñu ko kenn duñu ko kenn fóotu ko kon ndam du widd la ndam ne bu widdee loolu ñu jot daf loolu bokk nañ li nga xam ne jaxasoo bari moo taxoon ma ngi doon ko tare waaye ndaw xam ne xamagul dara amagul dara ku ne mu jaxasoo yow la leen dajee koo xam ne li ñu am ci xarit la lay jaaxal te xarit yi li gën a jaaxal mooy ñëpp boo xam ne ci ñàkk jël am xam ne boo xam ne ci fecc baay bi ak koo xam ne ci tool yi loolu doo ko boole benn ngir naa fekk ko dajee wax ko dama dañuy bokk fuñ dëkk mën a ànd ci loolu te loolu am na ci biir iraada bi ñuy boole kon euh, melokaan yi ñu soxla moytu yi moytu yi wax lu am bokk na ci jëw jëw bokk na ci gën a mën te ne suñu jëlaat léegi nit ñi ne nee yooyu moom bu yàlla toppee kenn நான் உண்மையை உண்டு போய் loolu di wax doon naa wax sax ci wàll ne borom kër yi dañuy wax sax ne léeg-léeg am na xarit yoo xam ne jëw moo gën a màgg moo gën a rëy njàll ci anam anam bi loolu mooy njaaw la boo gëree rek jëgale jeex boo tuubee jëgale ko jeex jëw na da ngay tuub ba doon ne ki nga jëw jëgale ko loolu bu la jëgale ko jeex kon yooyu maa ngi leen di ñaan yàlla boo gisee ñu fonkoon si kanam foog tudd yàlla sëriñ Afia yi bokk na ci ñu wax ne ñu dàqoon yàlla fas yi ñooñu amuñu jot amuñu jotu toog sax ñu toog wax yeneen ña ci seen biir bi jàng ña nga ci seen liggéey buñ ci nekk ña seen kurus baa ña nga kurus te li gënoon day wax ne fas yi dañuy jàng tey lépp dañu ko mokkaloon léegi nag boo leen ne gis ñuy réew seen bopp ci fas bu bu weñ tongee ci kaw araf benn araf rek nga tax ko doon rek mag ñi da doon xasi sëñ Afia kanam moo xam ne ñoom wax de sëñ Afia seen bàyyi dafa bokkal ci Alxuraan ni ngi am alluwal Alxuraan noonu nga doon amee alluwal xasi di jàng ko di jàng ko yëpp moom te boo dajee ñoom ñu doon ay mooy mu waaye léegi ku ci mokkal yenn xasi dañ ko mu xool la bëgg nga xoolaat ba dugg àgg na loolu du àgg bu dugg na loolu bi ci des it am réew du topp ay yolam yolam mbir mu ne mu seet la gën a yomb lu ñu def rek mu seet mu gën a yomb loolu lu na yomb mu ne ay ensaay yi ngay def waaye ay ruxas da nga koy bàyyi nga bàyyi Sëriñ Tuubaa mas naa wax laaj sëriñ Lamin gaye ne ko lu ngeen di naafila mu ne ko ñaari isib ak diis mu ne ko accam loolu di naafila jigéen sëñ ay mbàkke nee ba mu ko déggee la tàmbali moom di naafila juróom isib kon am murid saada ci wàllu yàlla mooy raw waaye seet yi gën yomb rek nga topp daal di wax ne li solo mooy def bu julli jotee yàlla la tax ba julli juróom waaye doo jiital doo dawal doo doo doo tofal koor it nee ko mag mag mi lay doylu yem naa doo raw benn ñi raw dañuy def farata daf sunna daf ay man duubal ci lañ rawee seen moom te am murit la daaw doon ñu maase am murit day raw ñu maase kon bokk na ci ay melokaanam fexe ba fexe ba raw ay borom mbaax kon du topp ay loxo fu mu gën a yombee mu jël ko foofu bi ci des it bàyyi xel nañ digal sëñ xam ne li ma tëdd digal lépp sëñ digal mu tëgg ci digal ñu bari ci ñun fii ne murid yi wootee murid waaye koo ci xool programme bi muy dund tey ana ana xam ne tey boo doon seet ci murid yi ay muridkat lañ ay benn benn ngay gis li gën a doy waar mooy buñ demee ba di discuter ndax wér bi ci sart yoo yoo xam la bokk wala bokk tasawuf ma kuy xamul ku ci bokk te doy la loolu tasawuf xamul ko bi kay li mu indi mooy ay wér yu ñu wute am na nit ñoo xam ne daf leen doon wér loo liggéey ñii mu yor leen alxuraan mooy kenn ku ne xam na garab gi lay fekk bu jox la wér ci waaye doonul mu ne nekkul saa te wér lu dara. wax nga ko wax laajal sa bopp loolu tasawuf xamul nit ku ci nekk tuyoo la jaamu yàlla boo saxal di ko def waxtu ngeen nga def tasawuf xamul bi ñu teewoon borom ñëpp ku ne am na lu mu dafa muy sa wet am na ñoo xam liggéey la leen doon doon ndax seen jàngoor liggéey la ko ay tur leen jox ñii alxuraan ñii leneen waaye daal nekk ci amul lenn loo soxal lu baax loo xam ne nekkul farat ci waaye nga def ko loolu suuf yàlla du ko yooyu jar na bàyyi xel waaye ñu néew ci ñun yooyu daal bu dee yéegi jàpp ni mënut mënut mënut ñàkk dal mooy añak daal ndékk léeg-léeg nga yokk ci njogonam di sant sëñ bi wane ne xéewal yi war a bàyyi xel sëriñ waaye ci mbaax ak jublu ko fi indi kon ku bëgg xéwale yi nga yokk ko yow da ngay sonn ci mbaax boobu ñu ko waaye nekk di consommé rek boo jeexalee yow ñii ñëw sa ginnaaw loo leen bàyyi du ngóor ak ndam ñu andi lu rëy nga lekk ko jàkka dem ñi ñëw sa ginnaaw fekk fi dara ñu laaj ñu leen see bàyyi ko lekk loolu laajte la bokk te am na ñoo xam ne nag yoon ñu soobu yoon woo la fu suñ fi yéene bàyyi dara seen njaboot dara waaye yoon la boo xam ne yëpp te yooyu lay mujjee mooy yi sëriñ boo xam ne bala ngaa doon am def saalix da nga bëgg sëriñ bëggee mu dëgg bu dee nent ak wala man sëriñ bi a loxo bi daa bar ndax lan mooy problème loolu bu sëriñ ci business man ne yow ab sëriñ yàlla ngeen di wala saa yoo ko gisee sa bët saxal dal ci yàlla soo mënee yàlla bu bu bu gisaatee dundal li saxaaba yi waxee ne ci yonent bi alayhi salaam bu masaana gëj a gis yonent bi rek dañuy mel ne dañoo delloo ginnaaw bu ñu dikkee yu feesal dara moo tax bi ñu yonent bi alayhi génnee àdduna bañ dellu saxaaba yi kenn koy day yëg ne am na lu newoon ci lu dem ak suñu loolu lañ doon kon bëggal sa sëriñ waaye bëgg nga yàlla bi ci si toppal ay ndigal waaye ñu xool. bu déglee loolu ñàkk a def bu mu ne nga ne sëriñ bi topp ko loolu moom diine xamu ko bi ci des it am service bu lim dafa lu mu war a def bu defoo nii lay gën bu la leeree ne ab sëriñ te mat na ko moom bàyyi ko sa bopp moom docteur li ko waxoon ñooy ab médecin kenn du dem naan médecin bi dafa war bindal garab bi suba ngoon waaye ëpp na lim bi ëpp na wala dafay manqué loolu xam nga ko da ngay faj ki lay faj xam na lay faj bàyyi sa bopp bàyyi sa bopp mooy salam ixtiyaar waaye loolu dana sa bopp li ma waxoon sànq nag ñu bari ñu ëpp li ñu yëngu ñoo ko tànn ñoo ko tànn ne nii laa bëgg a doxe dem sëriñ ba ànd tey yow loolu nag jàpp naa ne du ñuy doxal mbir yu bokkal ak murid daal nañu bàyyi xel ne mënta ko yow ndax li gën kaw la bokk na ay meloom yi ñuy wax plage bu def fii dañuy gisee nit koo xam ne boo nee ko looy def mun la def mu daal tasoo moom nit koo xam ne boo ko laajee sëñ bi looy def mu def def mu daal dund gi gën naa gàtt loolu dañuy wax ne am faqiir ibnu waqti am su doon waxtam leen mooy waxtu wu a rek la jamono ji laaj man du xool démb ndax weesu na du xool ëllëg ndax ñëw tey lay xool bu tey jegee après li lay dana jàpp ñun nag dañuy toog fi nekk lu ko ku sa maam ñu duufal di sos ay xisa wala ñu fekk xisa bu nekkoon lu soppi ko jàkkal ko moom nga jub yow bu ñu laajee loolu daf wax dara say doom bu ñëwee lu ñu nekk sa bàyyi def sa maam def nga ñëw di ci nekk di ko dund waxtu wu ne waaw léegi loolu bàyyi sa doom toog na fi di waxtaan di wax waxoon na fi naan waxoon na fi naan nee na maamam na naan loolu dara du ko kon fexe ba nekk ci lu waxtu li waxtu laaj ñu nekk loolu am lépp lay mel su ko defee nag yooyu yëpp bu dajee dana juróom ñett yi mooy dana am ci yàlla te ku am ci yàlla mooy gaa ñu ndax dem nañ ba lu ñu soxla yàlla fay maanaam yàlla du def lu leen naqari lu yàlla def neex na lu mën a xew seen kër boo leen wax ñu ne alhamdulilah ala foofu la ab julli war a jëm dama dem ba yëg ne lu yàlla def moo yow nit ñi nag daanaka ñu dégg nga gàll lañ lu xew ñu duñ d' abord daa ko faral di ne nii tey jàmm yëpp koor gi koor bu tàng bi ñu mbooyee li ñu mbooyee bu sedd bi ñu sedd bi jàmbar rek ku àgg yàlla nag lépp lu yàlla def dara neex ndax da ngay xam ne moo gën ci ak iraada saadiqa day yóbbu aar nit ba dootu faale dootu bàyyi xel ku yàlla borom ku la dëkk ku ne nga wax ko ne ak doro wa nafa min ar-rahman loolu ak yàlla tax na ñu waaye boo ëpp yàlla moo waral kulub saa mën na tëkku muti foo xam dugg fa di du man tëkku te xam naa ne wayu la lu ne mën na te bàyyiwoo xel yàlla mu tax si ci kon nangu ko di giraada saalixa day yóbbu ci yàlla boo ci àggee nag lu doo mën a def ko xul na ñu si ba naa ilaa maa kataballaahu lana ñetteel te moo ci mujj day tax a bokk ci gaa yu baax yi boo léegi yéen ñi séddale ñu bari seenu njàmbaar ñi góorgóorlu fas na yéene bu ñu war xel bi sëñ bi ram te mën ngaa weesu foofu mën ngaa fexe ba bokk ci gaa yi sëñ bi ramatu sa góorgóorlu boo nga bokk ci nga xam ne sëñ bi ana diw nga ñëw ramu naa nga mi nit waaye rek nañ ramu loolu nga ak yàqu iraada saalixa bu dëggoo da nga bokk ci ngi ah, euh, bi ñu leen di di leen ci turu sunu kilifa di waxe ci turu fondation Dialibatoul Marakhib bi nga xam ni moo lëkkale mbooleem njabootu sëñ Afi Bousso sëñ yi góor ak jigéen mag ak ndaw am lu ci mën a banqaasu ñuy yor seen kàddu bi ci wax fondation bi jamono yi di ko jiite mooy Serigne Djily Bousso Abdoul Khadir mooy président bi moom nag li ci bànqaas yépp ak commission yi topp ci gannaaw mooy membre comité directeur ci biir loolu ci la coordination bi doon coordonné conférence bi seen kàddu dugg te jiite bi Serigne Djily Bousso ak mbooleem ñi ko àndal ñépp kon kàddu fondation bi du weesu rafetlu ak cant ak gën a engagé woon rafetlu jotaay bi initiative bi pasteur bi ak teewaay Serigne Mbacké Abdourahmane dañoo gën a joxaat aw sas ni sëriñ Lam bu waxee moom bu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxale bokkam fekkoon na ñu ñett ñoo di sax ci doon jéem a xam ni kéwél du tëb doom di bët ndax doom tëb tëbiinu baaye may dam mu di dem mbaamu ko mooy du ami ndam du ami yar du ami way kon alhamdulilahi rabbil alamin bi ngeen ñu waxee loolu dafa fekkoon te ñoom ñetti muy sas thème bi liñ ci ñëw doy na duñ ci tudd lenn leer na nañ lañ ci gën a jàngate waat ak jaaru tiit kay mooy wolof daa wax ni doon nu fetalu daan teewuti reerew yàlla kon ah tiit lañuy def te doon mu fexeloo daanu sa bàyyi mënoon ci rëbb yi mbaa sama mu sa mooy lu mu dee da ko daan dara mu jógee fi ñu dox la bale yaa fetal yaa arme yaa gànnaay yaa te mënoo jàpp biir sax mënoo ko ñemewu fa lu doy waar kon doon mu fexeloo lu teewee yow yàlla mu wér la seen mbàkk sa wax dégg yi bu ci danañ gën a góorgóorlu wala gën a jaaduwaat ci loolu ba ñu may ñu ak dégg ak topp ci li te njariñoo kon fondation bi rek dañuy ñëw li ko taxaw jóg bokk na ci moo doon taxawal ñi ngi ko sosoon atum 2016 am na fukki at ak benn dem ak moom dañoo gisoon ni lii ngeen fi la maam yi yemoon ak wujju ba wàcc rek kon luy des ci ñun lay desee ñun njaboot gi ak ndaw ñi xamante bi ak jokkalante bi déglante dafa des ñu ne nag nañ lëkkaloo sos mbootaay boo xam ne dañuy boole ci jëmmal li taarafu ba nga xamee ne danañ mën a ànd sàmm ndono yi nga xamee ne moom lañ suñu maam bàyyee te wésuwul ndonoon xam-xam ak diin looloo waral ñu sos ko ci ndigalu am na ay njariñ yu réere 2006 dama jum 2006 laa ko wax am na ay yi ak àggale ko fa war a àgg ci biir loolu tomb yi ñeent lañ ko defoon bokk na ci ànd jàmboo jàppoo ak dimbalante ak sàmm noonu yi li ñu suñu maam bàyyee tamit moom ngeen ko waxee danoon sax tam ak diine ak taxawal ay barab yi liggéeyukaay yu mel yoo xam dañ koy participer ci société beeg ci njaboot askan wi yoon wi te bañ yaa fuus yaa caaral rek ndax loolu du ful noonu taxawal keesu social boo xam ne keesu dimbalante lay doon te mooy pomme bu njëkk ak dimbalante kon loolu taxoon ñu sos ko ñu ca dox ba nëgë yi am nay tomb ak yi ay termes yu ci tax du tax ñu indi détail ba moo jur lii tey bu dee daaray alxuraan ñëpp ñu ci woon ba moom na nga ca xam-xam yi itam noonu léegi nag mu des bi ñuy wax njàngum moderne mi xew muy école yu ko niru bi ñu nañ ko ci dolli moom it ngir yëf yi maanaam moo waral ñu taxawal fi benn école boo xam ne moom ngeen di seen bii ci ginnaaw mu ne ci penc bi muy maam Abdou Cheikh Afia Bousso nga xam ne boole jàngale ak yar bu dëppoo yoon wi te mën a ànd ak jamono ndax jamono ji lépp la la la leen soxla yoon wi lépp la soxla école boo xam ni dem na ci juróom-benni classe nga xam ni mi ngi amee deux cent quatre-vingts élèves yoo xam ni ci biir ab jardin yi ci daa fa kon loolu entreprise la boo xam ne doonatul lu juróom juróom-ñetti jàngalekat ay góor nga ca ay jigéen a nga ca ak ay saytu santé ci biir loolu lépp effort njàmbaaro ndaw ñi ci digal suñuy i ñaan noonu lañ ko taxawee fii ci ko ci xam-xam ak yi ko ñuru ak jëmbal ko taal ko fekk lu mu ay alfaan bi daal di xam-xam bu ñu ko waxee yaakaar naa majlis yi gën a siiw majlis yi ñëwee ñu doon ci doon jàngam école daal di ko fi taxawal te sens rek dañu daal di am 106 élèves bi ñu ko rek lancé ko barab bu mu mel ne dañoo xiifoon loolu maroon loolu ba tax na dem na fi ne ci 280 élèves yoo xam ne seen lépp fii la amee kon loolu bokk na ci réalisation formation bi te moo xoon ànd jàppoo dimbalante ak taxawal barab liggéeyukaay lii benn résultat la te bàyyee xel noonu ñu wane ngir référence roy ak wane baax waaye ko pour dàmbu xeeb nañu ko lool ndax bu ngeen mu leen ba ca àgg ci ci école yëpp àgg ci dayoo ak niveau ak expérience ak mat kon loolu bokk nañ seen réalisation ba tey bokk na ca réalisation yi ci dox yi ñu doon dox ba si fii moo waral ñu dem ba ab diir ñu gis ne màggal bi mi ngi fi woon suñu kilifa yi ñu ngi di ko doxal ba ci suñ Cerno mii fi nekk tey yàlla nga fi gën a yàgg te ak ñi ci gannaawam lañ ca wax bari na ñu dolli ci ne màggal bi sant la ak fàttaliku suñu affaire su kon comme sant moom lahu alayhi alhamdu wa shukru bila nihayati sant ci bir ruuxi wal jismi wa bir janan lañu wax ilal jinaan ñu dolli ca indi jotaayu xam-xam boo xam ne day gën a yaatu gën a leer ci jàngat ak nafar jikko yu mag ña ak dugub seen ñaafe te day xat ci bisu magal bi fondation jóg taxawal lu mel noonu muy conférence bi ngir gunge ko magal gi gàttaloo ko ko dëmmale ko ko taarale ko bis bi ak wane seen taxawaay seen jéego seen participation ci tool loolu ci réalisation bi bokk ñoo taxawal lii tàmbali ko woon daaw. te gis ngeen nii mu amee solo ba waral ñu indi fi ku mel seen bàkke mi mu indil ñu lii ñu fi indi ci ak taay bi te liñ mu ci am moo tax ñu tuddee chers yi seen tur adresse ba tur maraxit am na ci ay cër yu mag a mag yàgg nañ ko dégg kon bokk na ci réalisation yi lii di détail bi muy détail xam-xam diine ak jàngale ak jàngale yeete kon loolu bokk na ba tey bokk na ca ndaw ci biir kër gi ngeen di formé leen bàyyi xel di leen soññ ak a ñaax ci dundal doona li muy xam-xam ak diine ak góorgóorlu ci leen war ak sàmm seen ngor bokk na ca lëm ca juddoo fu yoon wi tëggee lam xam-xam ñu tulli loolu ndaw yi fondation bi yooyu itam ñii ngi ci te loolu ay jéego yu am solo la yaakaar naa dana neex a wax ñii fi teew ndax kenn leen seen kon loolu di yu am solo yoo xam ne fondation bi mi ngi ci ak yeneen yoo xam mi koy xaar ak def ci yoo xam day amal njariñ yoon wi amal njariñ bi ko waxee mooy société bi mooy réew mi jéem ji bi ko ak taxawaay bi mu am ci magal kon pour gàttal rek ndax dañu wax ci turu fondation bi ci xam ne li ko tax a jóg te dafa xaw a guddi loolu lépp bi ko defee nag dañuy mel ne dañuy door a tàmbali ndax yoon bi xamul daal du ko gis day mel ne defaguñ daal dañuy door a tàmbali ndax wa rubbama ibadatin kathira qad afsadatha lafzatul xaqira dañ koy wax ngir leeral ak wane exemple ak soññee liñ fi wax sëñ Afé wane ay jikkoom ak i jaar-jaaram pour nit tasaare jaay bi la waaye pour pour que yow daal moo sunu maam ndax na ko waykat ba waxew rek ku taarixal wala yu baate aalim mbaa waa ju baax man nga ni diir dundam ñu fay la diir dundam mel ne dundal nga ko diir dundam kon loolu moo tax rek ñu koy def ak di taxawal lu ne lii waaye du damoo pour yow kon kon loolu rek la doon nañ ko leeral di leen sant di dugg seen jiir kuréel ji soxna su Mbàkke ji ñi mu àndal ñi ne si gannaawam ñoom di jàmbaar lool ñu di wax ci seen di leen sant. di nuyu suñu way bi suñu sëriñ suñu kilifa alxames Diagne Bousso ñu xam ne moo fi toog jotaay suñu bu baax a baax li liñ séewoon lépp am nañ ci lu ko ko ci am yëpp nag ndax seen mbàkk mi ñu doon waxtaan defe na ko loo xam ne ñu woon ne dana ma dana mën lool li fi tegee tam ñu ngi sant mbokk yëpp ndax mbokk yëpp bokk nañ teew muy kër si mbir yëpp li si seexoo ba ci kenn na si Tuubaa gi fi nekk gépp ni na seen na ak taalibe bi ak kër ñëpp bokk nañ ci teew ak li ma ci war a xam daa tax daa taxoon mu mën a wax loolu waaye nee naa xolam seet na ci mbokk yi ndax rafetal nañ digganteem ak moom te xëy na moom sax lépp léegi du dox noonu lii ñu ko defal lépp léegi dox noonu ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te tàllal wax ñëpp ñun njabootu si ñaari lii fi nekk tàllal yi wax ñëpp ndax ay taalibe lañ taalibe Sëriñ Tuubaa lañu ko gëm te dëggal ko te gëm njabootam yëpp ak taalibe fu mu mën nekk taxaw nañ ko loxo bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyiwul ñan ñëpp suñu nit lañ suñuy bokk lañ seeni taalibe lañ te jàpp nañ ko dëggal nañ ko ndax li ñu fekk mooy murid saadix nangul sëñ bi déggal ko di ko liggéeyal di ñàkk di ko loolu moo lay fekk te moom bàyyi loolu lañ nekkoon moom moom bàyyi jara bi fi nekk ci loolu la nekk njaboot gi fi nekk tam ñëpp ci loolu lañ nekk li leen xamaloon mooy jàng alxuraan jàng xam-xam di jàngale di yar di liggéey di jaamu yàlla te loolu moom lañ daan def suñu réew ñi fi nekk ñëpp itam di war suñu réew leen loolu lañ daan def moom kon nag gannaaw li ñu waroon li ñu waroon a xam waxoon nañ lu sax war mu ci waroon wax dara amul ma kenn amul nañ may wax dara waaye nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey ñaan Serigne Touba bi nga xam ne moo tax ñu daje te daje ci tey bii nga xam ne moo tax ay taxaw nga xam ne ñëpp mën nañu ko seet ñoo ngi ñaan fekk aaj yëpp defal ma mboolem ku fi teew te ku bëggoon a teew teew fan wu gudd ak wér ak mucc ci lépp te doon daal Serigne Touba foofu dara la bañu ko te suñu leen sotti ñu xaalis bu bëree bëree bëri bu doy sëkk te ànd ak jàmm jàmm tey ëllëg te lépp ñu liggéeyee ko te nangu loolu ñoo ngi ñaanal suñu gan suñu waajur bi yàgg fi lool yàgg fi lool ñu yàgg ci gannaawam yàgg naa nag moom te daje bi yàgg lool te lépp ñu ne ma lool jërë ngeen jëf sant nañu baax a baax wax na dama ko mën a dox de yàlla mos ko wax dara day ñëw jërë ngeen jëf waa dara ndax dañu déggal nag ci xaw xaw ngay ñaaw te liggéey wax waaye maa ngi tàllal loxo tàllal rek maa ngi tàllal loxo mbokk yëpp ndax daanaka ñu xam bëriwul waaw dama ko bëri yitte lainnya waaye nag ñàkk ma yitte lool ndax lu ma yitte naa jël ba moom waaw bàyyi wu fenn fenn daal ñëpp sant ñëpp seen jaam sant ñëpp xol set njabootam ñëpp tam seen xol set ci léegi ñëpp waa kaw bu ko defee ñu bokk tàllal sëriñ bi إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين لو لنا عمرنا صحبنا بدنا وحبنا يسر لهم به لسيتهم الصلاة وكل ما يسر يشاء